suuf ñoom fas dañu yéene jàppale ñooña ñàkk seen doom ci hôpital Abass Ndao Aminata Mbaare Sow Amadou Ba reportage. Ouest Foire lañ ko fekk mu doon ab woy jur gu sëngéem Jean-François Coudera mooy bàyyi ci liir gi nga xam ni dañ ko fekk mu ñàkk bakkanam ci ab machine à laver ci hôpital Abass Ndao comment est-ce que la bébé bi nga xam ne mu ngi woon ci salle euh, kangourou bi mun na àggee ca fa nga xam ne nii foofu lañuy ñuy amalee mi te bu ñu sukkandikoo ci li ñu directeur bi wax mooy machine à laver bi digganteem ak salle bi nga xam ni ci la bébé bi ne toll na ci benn kilomètre. moonte njabootu Koudera mësuñu xalaat ni dañu ñàkk seen bébé ci yile anam. elle aussi elle s'est déplacée pour aller là où ils ont. gannaaw ba euh, soxna si wasine euh, moom nag euh, gis na doomam mu xamal ñu ne mu ngi ci jàmm dara dalu ko te sax ne ci ëllëg sa war nañ ko yóbbu ci salle kangourou placé ko foofu. bés bi ñu waree génn hôpital bés boobule la liir bi daal faatu. ca mujjantal ga mu doon ab navette bu wayjuro bu góor doon amal diggante hôpital Abass Ndao morgue bu hôpital Idrissa Pouye ak commissariat bu Médina. Ce qui étrange. que après avoir rentré ce jeudi. li ci doy mooy gannaaw ba ma ñibbisee ci alxamis bi sama tuteur daf ma xamal que ni ba ñu ko convoqué ci hôpital bi directeur général bi dañu ko euh, bébé bi nga xam ni dañu kon gis ci machine à laver bi loolee tax na rek moom mu jàpp ni machine bii kat bu fekkee ni mu ngi taw kon dina metti lool ci anam ya nga xam ne nii moom la bébé bi nar a nekkee ndax yaram bi yëpp yàqu woon ba sax mënutoon lekk mënutoon naan kon mu jàpp ni loolee tax sax ñu xamal ko ni waajuru xale bi daal mënuñ ko gis ci condition yooyu. mbir mi jaaxal ko lool mu ne bëgg nu am lu leer ci yan anam. la bébé boobule daal di faatu. je veux la li ma bëgg rek mooy ñu leeral mbir mi ñu xam exactement li nga xam ne nii moom moo ci xew ndax liir boo xam ne nii ñàkk na ci bakkanam nii loolee lu metti lool la. Euh, dafa nekk loo xam tey c'est quelque chose de grave ay bébé yu réer. ay bébé yu ñaax seen bakkan ci machine à ay bébé yoo xam ni livre nañ leen ci morgue bi ñu nekk en pièces détachées ak yeneen ak yeneen kii di Jean-François Coudera nee ab na ab boo xam ne ñu ngi koy waaj a déposé waaye foofule ci hôpital Abass Ndao ginnaaw gi ñu woowee téléphone kii di directeur général bi nee na fi mu toll nii mën a gu cee yëy yàbbi ndaxte am na enquête bu ñu ubbi ci mbir moomu moomulee. Aminata Mbare Sow jëye jeneen ju xew gi la yoon ma nga xewee ca quartier Misra ca diwaanu Ndar ñaari soxna di jigéen kenn ki juróom fukkeet lam